mais tigi raayit tur bi moo ma xaw a de moo ma xaw a moo ma xaw a laal tigi raayit xam nga raayit mooy dëgg tigi raayit bi ma nekkee ci jeel bi doon déglu tigi raayit mais fépp xola alaaji njaag xale yi euh, euh, dañu am fasaaxa fasaaxa moom la arab di woowee fasaaxa bind c'est pas facile c'est pas donné à tout le monde wax ni ma mel ci arab di ko bind ni ma neexee xam mm. lonk mimiriya mm. euh, ba sin mimara liiflam asaxeer di ko écrire xale yi nooñu nañu mel njaag nag eh, da am loo xam ne dama ko bëgg expliquer bi ma nekkee ci jel bi gars di ma indil añ ñu ni ma ñi lay waar ci kaso bi am na njariñ parce que yaa ngi waar prison yi mel ni bàyyi ma gën a waar leen leen di dalal di kontaan lool ci ñi fi teew ñëpp di wax que ne tigiraay de tigi tigi c'est en pulaar tigi mooy lu nekk boo nekkul doo nekk journaliste boo nekkul doo nekk maire boo nekkul doo xëcc fil câblage di câble loolu nag boroom xam na kan la ko xam na ku ko moom quoi di leen wax que ne raay c'est en anglais parce que ku bëgg dëgg foog nga nekk loolu moo waral tigi raay raay moom mooy dëgg quoi euh, di kontaan lool di leen wax que ne tigi raay buñ ko doon signifier bëri na lu muy tekki parce que ci àdduna fu fi bëgg a tekki foog nga nekk ku fi bëgg a tekki sa xel dal foog nga def dëgg ñun ci loolu la ñuy leen di ziar bu baax. Euh, comme ni ma ko waxee sànq rek mooy que ne tigi raayit euh, tigi c'est en pulaar raayit c'est en anglais tigi bi mooy lu nekk parce que doomu aadama boo nekkul doo def dara boo nekkul doo nekk conseiller doo nekkul doo nekk baykat boo nekkul doo nekk journaliste. doo boo nekkul doo nekk animateur donc nit da ngay nekk foo nga soog a def moo waral tigi raayet ñun nag dëgg lañuy teewal ci la ñuy xëy ci lañuy ñuy gont di leen wax que ne définition bi mun na ci yendu mun na ci fanaan parce que mun na dugg fu sori quoi. donc album Gandal album Gandal mooy xam-xam looy def te amoo ci xam-xam day yomb pour nga juum ci. donc moo tax ñu yàgg ci nekk ci di ci daway at yaat 2006 ba léegi ñu ngi nekk ci musique kon du benn fan du ñaari fan donc loo amul xam-xam mën nga def de mais say erreur day bëri moo tax ñu dippee ko gàndal am ci son boo xam ne gàndal la tudd moo tax ñu dippee ko gàndal bref dinañ ci gën a wax beneen bi mooy pourquoi ñu choisir son yi bokkul waaw dañu seetlu nekk nag depuis quelque ñun jeunes yi album bu génn wala mixtape bu génn boo dégloo benn album bien boo nga jë bañ a déglu beneen album bi xam ne benn la ñëpp trap la ñuy def ñëpp dib la ngaaka ñun nag yàlla daa def ne suñu culture moom moo gën a yokk tax ñuy ñuy def dañ koy safal ci lu ñuy def sa parce que bala nga ne naam danga fay nekk te africain la du ñu ay kaana du ñu ay américain donc dañu wane ne ñun ay sénégalais lañu dañu fier ci nekk sénégalais moo tax suñuy son da nga ciy digg ciy dégg riiti nga dégg ci xalam nga dégg ci lépp loo xamante ne sonorité africain la bëgg nañ di ko ajouter ci suñu musique c'est parce que bala nga ne naam da fay nekk moo tax album bi am na presque musique yu wuute yoo xamante ne waxuma xale du fa def lii lii du albumu xale de non lii du albumu xale lii xale xale mënu ko déglu wala boo ko dégloo boo dégluwul bu baax doo déglu ñuy wax lii albumu mag la album la boo xamante ne message yu fort ñoo ci nekk message yi dafa am solo tey booy déglu son am na ci yoo xamante ne bëggee la yëngal mais dafa baax xale bi nga xamante ne mu ngi jàngi mu xam ne jàng du caaxaan dafa baax xale bi gis journaliste bi di dang-dangi suba ak ngoon guddeeg bëccëg mu xam ne liggéey du caaxaan dafa baax dafa baax dafa baax c'est que il fallait ñun ñi nga xamante ne ñooy ay jeunes ñu tollu ci ñun ñooy wax yenn saa yi ñu ñuy déglu ñu bàyyi xel ne lépp lu ñuy wax xale yi dañ koy copier ak ñun lépp lu ñuy def xale yi dañ koy copier moo tax su ma gisee xale di dajji magasin jàngu di jël alalu jàmbur di yóbbu non damay rus damay xam ne lii fi mu ko jëlee ci mag bu dëng la rek mais nit foo mënti nekk da nga war a wane exemple bu baax ñun nag ay xale lañu mais dañu gëm ne dañu war a bokk ci ñiy defar réew mi ñu loolu lañ gëm moo tax album bi mu am multicolore donc loolu moo ko indi moom dinañ ci sawar tontu parce que dañu nekk ay nit bañkat dañu yàgg bañ dañu yàgg ci musique nekk ay bañkat moo ñu bàyyi ci musique donc choix bi mooy euh, dañu gis ne lépp Dakar lañ koy def te bu doon xaalis kese moo tax ñu dugg ci misique day fekk ba bàyyi nañu musique mais dañ ko bëgg ñu am ci euh, bët bu sori buñ ci demee euh, ba tax na choix bi mooy Bambilor la ñu am Bambilor mooy suñu feev Bambilor lañu gëm commune bi lañ gëm fii la ñu gëm moo tax ñu def ko fi ab fierté parce que mënoon mënoon nañ ko def Dakar donc loolu yëpp ci gëm ne sama gox dama ko war a développer ci li may def dama ko war a wane ci image dama ko war a wane ci doxalin dama ko war a wane ci li may liggéey muy musique bi may def ma jële fii dëkk bi yow yóbbu ko feneen ak feneen te gëm naa ne sama album dina wër àdduna même bu fekkoon tey ñaari nit ñoo fi nekk man presse bi moo ma ñor presse bi ñëw assister jël seen temps jóge dakaar ba fii loolu rek déjà neex na ma ci album bi parce que Bambilor laay wane doomu Bambilor laa si commune bi laa juddoo man fii laa am moo tax lépp lu may def fii laay jiital ñun seexu yàlla yi loolu mooy suñu philosophe si loolu la ñuy dox guddi ak bëccëg donc euh, su ma la déggee mooy da nga ne ndax kañ la ñuy dugg ci musique 2006 la ñu dugg ci musique 2006 2005 la ñu dugg ci musique boobu ak léegi yaakaar naa ay 15 ans yooyu la donc yàgg na yàgg na tuuti yàggul <coughs> beneen bi mooy ku wax album wax tournée ku wax album wax ay spectacle yoo war a def après ñu ngi. programme spectacle boo xam ne dañ koy def spectacle bu mag boo xamante ne dañ ko tey lii dañ dañ defoon sortie bi rek pour ñu ñu def sortie bi c'est parce que album bi ci ci Covid bi Covid bi moo taxoon génnul mu metti trop ci ñun nag quoi donc mu nekkoon mu nekk jaar-jaar bu metti euh, programme album ba mu war a génn Covid ñëw comme ni mu dalee ñëpp am ah, mu metti torop loolu moo taxoon génnul moo tax. ñu préféré génne ko pour ñu mën a def tournée nationale ak internationale ci loolu lañ toll tey bu album bi buñ ko génnee ba pare ñu ngi ci loolu di war a def tournée nationale ak internationale incha allah ñu ñoo waaw ñoo produire suñu bopp label studio Bula lañ ko defee Papis Ndiaye moom moo def moom moo ci ci studio lañ ko def studio bi moom moo ko def mais ñu ñoo produire suñu bopp beneen bi mooy. yaay bu ñaaw bi ngeen di gis moo moo def son yëpp album bi moom moo ko def DJ Vibes son boo fi dégg rek moom moo ko def presque lépp waaw ñu sonal ko guddi ak bëccëg nag suba ak ngoon mais bopp bi li ci nekk dafa doy waar dinañ ko xam après parce que gaan boo xamante ne suba ak ngoon guddi ak bëccëg dañ koy sonal mu sonn ci album bi trop te ku déglu bi di nga xam ne ki liggéey album bi non bopp la yor. boobu ñu am lépp day delluwaat ci ethnie bi parce que d'abord li seex bi wax rek bala nga ne naam nga nekk fa ñun dañu gëm ne euh, li ñu doon moom lañu mën a porter yóbbu ko fu bëri def ci lu doy waar te vraiment am nañu yaqin ne li ñuy joob du pour saal bi joobuñu ko pour ñaari nit te dina génn incha allah te di ngeen ko dégg fu sori di ngeen ko dégg fu sori parce que. joobuñu ko benn fan du ñetti fan du ñaari fan te musicalement euh, musique bi dafa taxaw donc benn Madam liñ ko inspiré rek mooy dundalaat ko euh, mënuñu leneen lu dul ci li ñu yëngu ñu wane ko ci wane ci ay valeur am wane ci suñu culture muy riit yi muy xalam muy lépp looy xamante ne dafa dafa soqeekoo ci Haalpulaar rek ñu wane ko loolu moo jublu bi xam nga di ko ci hommage di hommage artistes yëpp yi nga xamante ne ay Haalpulaar lañu vraiment fierté la daal si ñun. ñu wax ci ndaxte dafa am suñuy grand yi fekkoon ñuy musique jafe-jafe yu mel noonu rek moo tax ñu bàyyi musique parce que fii dafa xaw a enclavé nag fii lañ dëkk nag fii la ñuy tiitaroo mais dafa xaw sori ba pare li ngay bëgg ci musique doo ko am fii il fallait nga dem Dakar dem di enregistrer di passe di yéeg di wàcc. xam nga wala ngay jënd essence di dem di yéeg di wàcc donc pour ñun bu ñu demee ba toll ci war a génne album li taxoon sax mu gën a yéex dañu gëm ne ko ñun lépp lu nit di am war nañ ko mën a indi fii moo tax ñu ne label bi day ànd ak euh, kii album bi day ànd ak label production boo xam ne audiovisuel lépp moo ci nekk nga xam ne ku bëgg clip bu baax ku bëgg studio bu baax son bu baax ku bëgg enregistrer album mën nga ko fi defee fekk doo dem temps loolu lañ gëm parce que dañ ci yàgg nekk xam nañu mettiwaay bi ci nekk xam nañu lépp lu ci nekk ba pare suñu rakk yi nga xam ne ñu ngi nekk ci musique bi fii coono bi ñu daj ñun ñoom ñu bañ ko daj donc beneen bi mooy li ñu bëgg a def ci musique il faut ñu am suñu labelu bopp parce que musique la boo xamante ne euh, gëm nañ ne lii benn son bu ñu joxee la album bi ndax li ñu war a def dafa bëri li ñuy xaar dafa bëri il fallait ñu am label boo xamante ne ku soxla ku soxla production bu baax da nga fay ñëw incha allah loolu moo tax ñu am xalaat bi.